suñu borom maa ngi euh, sant euh, ki nga xam ne mooy euh, di sant ñëpp di sant ñëpp di sant ñëpp. xam nga mbégte. Mhm. mbégte mbégte bu rëy mbégte parce que lu tax mbégte mooy que ni dafa am lu ko waral dafa am lu ko waral Zeyna. Mhm. waaw dama dafa am fu ma dooree. Mhm. ma am fu ma yegg si tey. donc moo tax ma am mbégte et eh, sama xol dafa fees nag parce que bëggoon naa di def bëggoon naa wax mais duma mën a wax parce que sama xol dafa fees. Eh, saa yoo doon def événement dañ daan gis eh, kalaajo. Hmm. di ci jàpp tey nekku fi. waaw loo yàlla moom lépp lu mu def rek noonu la. Hmm. dañ koy dañ koy nangu. Hmm. il boo ko beaucoup xam nga dañ koy ñaanal fi mu nekk yàlla na ko gënal fii ci barke yonent bi sallallahu alayhi waaye. Zeyna mhm. euh, lu bëri dal na ma ci événement bi mhm. def naa si sax choc. ci événement bi def naa si sax choc. Mhm. ci autoroute bi. ci préparatif bi. billaay parce que su ma ko fësaloon rek dañuy naan buzz la. lu ne def naa ko ci. mais dama dama nangu euh, dogalu suñu borom. xam nga. ànd euh, euh, ànd ak sans froid. Mm-hmm. xam nga gëm li may li ma li nga xam ne moom laa gëm ma ne dinaa ci arrivé par force. kon tey dangay ngay dëggal li nga xam ne mooy showbiz dafa metti showbiz dafa bari ay ay ay pièges dafa bari ay defin ba ci mystiquement du dara du dara mm-hmm. showbiz du dara. Mm-hmm. billaay wallaay zim du dara du dara bu ñu bu ñu ñu boolee xol yi rek mu gën a neex. du dara showbiz du dara. très belle soirée. merci beaucoup jërë ngeen jëf. qu'est-ce que ça te boo boo boo ñëwee tey nga organiser lu mel ni nga jaay album ñu def vente aux enchères ñu jaay ko ci prix bu tool ci un million de francs CFA bi nga koy yëgee lan def. waaw loolu mooy kan Diallo man jaay naa sax sama teaser à un million jaay naa fi sama benn son à un million son sanu bi un million laa ko jaaye tey album bi premier album ñu jaayee ko un million ñu toog ci salle bi am na ñoo xam ne jënd nañ trois tables jënd deux tables Ah? sant yàlla bu baax barki naa Seydina Muhammad damay sant yàlla bu baax a baax a baax a baax parce que man defuma fi li nga xam ne moo tax tey nit ñi di jël seeni alal di ko def ci man defuma fi dara waaye daal let lenn rek laa xam ne moom mooy nit mooy xol bu set. mais un album de neuf titres lan moo nekk ci biir am na am na lépp hmm. yaa di mbalax yaa di ah, am na traditionnel am na world music am na musique boo bëgg rek. booy sentir boo bëgg rek mu ngi ci biir et je demande aux Sénégalais yeah. Euh, dama leen di wax dama leen di wax ni rek que ni euh, prochainement dinañ gis lu gën a rëy King Fat incha allah di leen wax ni bii bu commencement la mais lii ñëw mooy daq incha allah King Fat on a dépensé on a mais non moom la Sénégal moom la moom la ku nekk di dund amul siisu moom la ku nekk di dund ku si nekk rek son bi di nga ci gis sa bopp muy ci entreprise yi muy ci école yi muy ci kër yi foo mënti dem amul siisu mi ngi fa mi ça existe donc sénégalais laa ko wéyal ndono tout d'abord mi salmini bandiraɓe futankoɓe bandiraɓe musidɓe tëdd e mi salmini onon foof mi yettimon allah samay mboq lañ ñoo xam ne ñoo ngi may soutenir bu baax a baax a baax man aw ma lu dul sama cosaan minage aw ma lu dul sama cosaan moo tax tey ma génnee jaasi bi te xaar leen incha allah ouverture bi léegi léegi incha allah Señor.